dap naa ne France moom kon bu bu fa amee jëf xëy na ci sa taxawaay la waaye tamit du fàttewuñ tamit jëf yi jëfoon yi jiitu yi France jëfoon yi jiitu ci taxawaay ñoom sëñ Modou Kara ñoom ak sëñ Xaadim ak sëñ Modou Mamoun kon jëwrin la manqué dëgg-dëgg jëwrin ju taxaw liggéey bi foofu te jàpp naa ne kàddu yi tamit France dégg ko sëñ Bamba Thiam mi jiite fédération beeg sëñ Modou Fall Kébé ñoom ñëpp wax dëgg yàlla wax nañ ci ak ñoom sëñ bu soobee imaam tamit mi ngi nii waaye def nañ ci ay jéego taxawaloon nañ fa benn association boo xam ne suñu am di mbàkk mii moo moo ko jiite waaye gis nañ ne dem nañ ci waaye doxut tamit doxut dafa taxaw euh, suñ imaam bu soobee it fa la nekk te ñoom xam naa ne jaxasoo nañu ak daayira yi tamit kon ñoom tamit sagam ñi ngi fii ci jataay bi te ñi ngi leen di déglu am na daayira yu leen di déglu loolu man xam naa ko kon war nañoo gën a di leeral tamit liggéeyu Muxaddamatul Xidma ndax bëri na fu mbooloo mi dem lenn ci suñ jëmm yi ñooy tukki ay tukki ñu jox leen kàddu ñu leeral liggéeyu Muxaddamatul Xidma am ñu fa engagé wu jëf ci jëf ju rëy Guinée Conakry bañ fay dem dañu doon tourné ji benn film bañ demee leeral liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ci la suñ Babacar Ndiaye ñoom ñiy jël engagement bu rëy ba at mu jot liggéey bi day yokk kon tamit képp kuy membre daayira nekk ci ab dëkk euh, kon suñ am di ak suñ imam jàppale leen ñu ci France am nañ ci jafe-jafe bu baax. waaw waaw waaw ñoom buñ ci jàppee mu dox. waaw <laughs> boole leen ak suñu asan rek ci France. ñëw fii ci Touba yi bokk ci commission culturelle yor kàddu gi di wax ci wàllu xam-xam ak diine. Mm. nga nekk biir France di tourné ci daayira Sëñ Touba yi te doo wax ci daayira wala doo ci soññee. waaw ndax moom ndax moom <laughs> li may li may leeral li may xam naa loolu moom kon kilifa yi daayira bi ñu ngi nii na na na délégation bàyyi ko fii dem Mali ngir jàmbaar la ngir gën a samp liggéey bi waaw siñ euh, euh, ni ma ko waxee léegi maanaam France am na camion vidange boo xam ne daayira bi mu ngi ko yor waa France ñoo ko jënd morgue bi deuxième morgue bi am quinze tourwal waa France ñoo ko jënd jëndal nañ ay ñaari machine tamit yoo xam ne yu ñu yéeg di dawal lañ mais loolu booba dafa amoon ay waaw euh, dafa amoon ay ay ay taxawaay yoo xam ne ay ndaw ñoo ko porté woon muy ñoom sëñ Modou Kara Samb ak sëñ Xaadim ak sëñ Modou Mamoun loolu kon dafay mel ne liggéey bi bu sooxee rek liggéey bi it ñun am nañ ci expérience léeg-léeg nga dem ci yenn daayira yoo xam kon nañuy def bay lijjanti loolu ñun waa Côte d'Ivoire war nañu mën a barkeelu ci liggéeyu Muxaddamatul Xidma bii te it li sëñ bi wax sànq ci ndaw lu ko mën a yor loolu dong moo jafe-jafe bi kon tey jii communes yëpp nga xam ne treize bi sëñ Magumba Caam ko jiite kooku di sëriñ Seex Ngom moo ko jiite yëpp ko sëriñ Ibrahima njaay moo ko jiite Malick Kori sëriñ Ibrahima Ñas moo ko jiite commencé sëriñ Abdou njaay moo ko jiite man ma jiite daayira ajame jëwriñ yooyu la ñuy waxal liggéey Muxaddamatul ma bii ñun waa Côte nañ ci jàpp ak suñ fukki loxo tey jii ñu jataay boo xam ne man mi fi nekk dey dama waxoon Moustapha Fall du ma fi ñëw ndax li ñu waroon dara lañ ci defut kon barab boo xam ne dañ faa woote positif na kenn ku ne def ñu woo la nga fay dem te defoo la la war defoo ki dara boo fa demee kersa la nga fay jëlee kersa ko mu fi jëlee nag moo tax tey jii ma ñëw laxasaay na dinaa wax ndax fii laa toogoon nëbbutu na du wax ndax dama dégg tubaab loolu nag Côte d'Ivoire ñaar fukki junni lañ joxe ak ñeenti téeméer loolu yi gàcce la ci ñun waa Côte kon bis ni ki tey jii jëwriñ ñi ma tudd ci biir Abidjan nan laxasaayoo ñi ci lentari bi mën naa leen tudd ku mel ne sëñ Balla Diop mooy jëwriñu Touba Lo mi ngi nekk Yamoussoukro kon liggéey boobu na ngi taxaw ku mel ne sëñ Massayer Amar moo nekk bu Bouaké ku mel ne sëriñ Balla suur moo nekk Diogono Fula ku mel ne sëriñ Fallou moo nekk Korogo ku mel ne sëriñ Saliou Ndiaye moo nekk Dalwa Baye Demba baay moo nekk Maa sëñ El Hadj Niass moo nekk Gañwaa sëriñ lu juuf moo nekk Abwaso sëriñ Daam Gay moo nekk Touba Divo waa béew mi sëriñ sëriñ Youssou Jaxate moo nekk béew mi kon jëwriñ ñi ma tudd am na ñu ma bàyyi waaye dañu xam ne liggéey Moukhaddamatoul Khidma bii bu soobee yàlla bu ñëwaatee Abidjan bu ñëwaatee Côte d'Ivoire duñ ci bàyyi kenn kon ñëpp nañ ñu xaar bu soobee yàlla kenn ku ne. moo xam bëgg nga ko moo xam bëggoo ko danga ci am laa ci wow ci def balaa déwén danañ ko indi fii incha kon liggéey bi moom fu mu jaar na soppi ko soppi ko ci nii wala mu moom moo fi ne kon ñoo ñëpp ñun tudd seen tur nii li may wax nag man saa ma jëlee kàddu ko suñ na gumba laa ko waxal moo xam bëgg na ma waxe nii moo xam neenañ la ko bëggee woon waaye man nii laa ko mën a waxee kon nañ xam ne ñun ñëpp bu soobee yàlla su ëllëgee nañ jàpp ci liggéey bi ci ni mu gën a gaawee jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Baara Fall kàddu yi am na solo mënu ci woon a ñàkk waaw jërëjëf loolu nga wax moom maanaam li am solo mooy gis-gisu jëwrin yi ci daayira yi ndax ñun liggéey bi liñ liñ ci liñ ci war mooy leeral rek fi ne tournée bi ñu doon def ak sëñ Mamor 2012 dañoo dem ci daayira yëpp ci réew yi ci Europe leeral leen mais booba ñun dañ doon def taxaw seetlu man dama dama dama dama wax ne jëwriñ ji ñu contacté war rek am na gis-gis bu bu am solo ndax jumaa ji fi ne dafa ruqe waaye ñoom am na ci ñoo xam ne ay boroomi xam-xam lañu am gis-gis yu yu ruqe mooy dañuy gis ne liggéey yi bari na waaye nag liggéey yi gën naa farataante am na tamit yoo xam ne gën naa ñor sëñ bi ndax sëñ bi bu ñu dee wax nag ci dëgg-dëgg te waxante dëgg rek diine moo taxoon ñu koy tumurankeel fanweeri at ak ñett yoo xam ne mi ngi ci loxoy tubaab yi te diine jooju nag li koy jëmmal mooy jumaa ji tabax soorool yu rafet ak jumaa ju rafet taxu toon mu tabax lu jumaa ji dafa bëggoon ku fi ñëw man koo seereel ne kii kat li ko taxoon a jóg mooy kaweel ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan la kon kuy jëwriñ Sëñ tubaa ñu lay woo ci luy gën a taxawu loolu nga négliger ko loolu damay jàpp ne gis-gis bu bu bu woyof lay doon gis-gis bu woyof lay doon kon nag loolu dafay aju ci gis-gisi jëwriñ yi Sëñ Ibrahima Sëy mee wax na ko maanaam loolu nag bëri na jëwriñ yoo xam ne wax dëgg soo ci waxtaaneek ñoom danañu jaaju léeg-léeg am gone gu am na ay daayira yoo xam ne sax foofu ci Toscana rek fu mel ne pojji bon si bi ma fa demee ren waxtaan ceeg ñoom ku dëkk fii ci koñ bi moo amoon jafe-jafe ci bëggoon ko faa taxawal te mënu ko waaye daf ci occasionné wu daan ne man naa ko gaaw yëkkati ay loxoom ñu samp ko fa kon lu mel noonu la ñuy wax ci relation yi faw mu am ku volontaire loolu nag euh, jàpp naa ne Eh, mooy des kon sëñ baara kat bi yi nga wax am na solo ñoom sëñ Touba ñii xam naa ni am nañ jafe-jafe Côte ak sëñ bu rëy waaw ak ñoom sëñ Sadex loolu moom xam naa ko kon yow boo waxee loolu te jàppale leen ci liggéey bi dana gën a samp